man dañ maa mayoon borom kër léegi nag man bëgguma ko sama yaay ak sama papa mbokk lañ si ñoom mais man bëgguma ko ñu ne ma dinaa toog ci sëy bi maa leen duma fi toog boobu maa ngi jàng maa ngi def classe CM2. CM2 boobu ñaata ay dix ans yooyu rek laa war a am. dix ans à l'âge la maye. waa ñu ñëw ñaa xam nga suñu famille dañuy am koo xam ne dañ lay takkal sagar pour boo màggee tuuti ñu may la ko jëkkër léegi bu ñu ñëwee nag man leen man bëgguma jaru ngeen may takkal sagar bi ma amee nag l'âge de quinze ans si la ñëw mu ñëwaat mu ne sama yaay ndax liñ doon wax mu ngi dëggu ba léegi ma leen man waxoon naa leen ko dama koy répété waat bëgguma ñu ne ma il faut que nag nga dem parce que doomu diw du ñëw di la ñaan si te muy mbokk nga koy delloo guróom maanaam ma ne ko man duma dem parce que bëgguma bàyyi leen ma bi ma demee nag defi ji examen si laa ñëw ñu ne ma maye nañ la. examen mhm. ñu ne ma maye nañ la. ma ñëw ma ne sama cousine kër gi bari nit lu xew mu ne ma ma dem Diw. ma ne ko déedéet loolu mënta nekk parce que sama yaay wax naa moom ne ko bugguma sama yaay na ma kër gi dee benn kàddu la am. te sa papa Diw moo ko yor. moom moo la may. sa papa bi la jur moo la may. déedéet. maanaam suñu kër këru famille la ki gën a nekk mag si kër gi moom mooy yor kàddu kër gi moom mooy décider lu ñuy def ak lu ñuy bàyyi ma ne ko man bëgguma léegi nag ñu continuer si loolu ma ne leen bëgguma ñu ne ma même soo bëggul duñ tas sëy bi ndax suñ ko tasee mbokk gi day tas ma leen boo leen ko tasee mbokk gi day tas waaye man bëgguma du ma dem léegi nag si lañ nekk comme kii insisté na la bëggul nañu ut loo xamante ni suñ ko defee dina toog si sëy bi jéem nañ maa yóbbu si sëriñ yóbbu nañ ma fu nekk ma ne man bëgguma ma taxaw fu ma taxaw daal ne bëgguma léegi sama yaay ne comme moom buggul ah tey ñu ko bàyyi ñu ne ko déedéet léegi nag sama ñoom bàjjen ak sama ñoom papa ne nañ ma muur ma dem sëy ji naa dem daal. nga arrêté sa jàng. ma arrêté sama jàng bi ma arrêté sama jàng dem booba xale laa ñoom ñoo ma ëpp doole ma boole lu ma neex ak lu ma naxar yëpp ñëw toog bi ma fa amee benn doom bu góor. bi ma jëlee bi ma sant bi ma yëgee ne jël naa ëmb sama doom boobu ma ñibbisi si kër euh, bi ñu la muuree nga dem sëy bi nga demee euh, da nga egg waa ji jël la damaa egg mu jël ma ñaata ñaata weer nga fa def ma fa sax un mois presque dama fa toog trois semaines ma sentir na man mii dama commencé di faible sama cousine na ma kaay ñu ànd hôpital est-ce que yow mii jëloo ëmb waaye bul wax ne man maa la yóbbu mu jël taxi wiiri ma fekk jika si taxi bi ñu dem bu ñu demee ñu defal ma test maa ngi ñaan sama xel naan yàlla bu mu fa jëlee ëmb bi ma ñëwee docteur bi ne ma ñëwal ma defal la test ñu def test bi man xaaruma sax test bi sama cousine bi moo ma dab si yoon bi ne ma ma nekk déet bul wax positif wala négatif mu ne ma positif ma continue, du jooy ñibbisi si kër gi toog après si su bëgg laa jël samay bagage ñibbisi si kër gi sama kër yaay ma leen man bugguma ma toog ñu ne ma yow li nga wax mooy doon dëgg yow xale bi ñun suñuy wax ay mag yi di doon fen maa leen bëgguma ñibbisi naa léegi bi ma tolleen nag sama grossesse huit mois docteur yi na ma est-ce que doo dem nga jege ji ko moom ma ne leen deew ma dew ma di ko jege su ngeen xamee ne man mii maa si risque si doom bi ma ëmb ngeen war ma opérer sauver leen sama doom ngeen bàyyi ma ngeen xamee ne damay di sauver leen sama doom bi ma ëmb ngeen bàyyi ma waaye man du ma dem si moom benn yoon na daal jóge naa si jël ëmb baax na doy na kon sa jëkkër ji ñu la may benn yoon ngeen sëy benn yoon lañ sekk loolu. si laa jëlee ëmb bi ma ñibbisi sama kër mm-hmm. bi ma ñibbisee nag maa am ay complications si grossesse bi bu metti lool nag waaye teewul sama yaay mu doon dimbale. dimbale na moom ba finalement jour bi nga xamante ni damaa waroon euh, accoucher sax sama tension bi dafa monté woon. ñu ne ñoom duñu jël risque pour defal ma accosment normal su tension bi wàccul dañ may césarienne si diggante bi sama tension wàcc ma mën a def accouchement normal mais sama doom gëj naa ko gis depuis bu mu amee un an six mois. avant nga koy feral. daa fer xam nga ñun suñu biir kër duñ dañuy compter weer maanaam dañoo bokk si ñoo xam dañuy compter weer un an six mois ngay nàmp muy góor muy jigéen ñu feral ko si la ñëw ne da jaa soxla doomam ma ne sama yaay jëlal doomam mu ngi noonu. góor la wala jigéen. góor la jox ko doomam man du ma xëccoo doom bu màggee rek dina ñibbisi. depuis boobu ba léegi nag gisuma ko mi ngi foofu. depuis boobu ba léegi ñaata at la. depuis boobu ba léegi instant bii nii mu ngi war a fêter am onze ans je onze ans. depuis onze yaa ngi divorcé ak sa jëkkër. depuis onze ans maa ngi toog. may na baat. dane ma tant que lim nga xamante ni mu defoon naka si man suma ma ko ko delloowul du ma may baat. puisque ay mbokk ngeen. ay moom yaayam ak papaam xam nañ ne yow xam nañ ko bu baax ba yaayam moo ko doon jàppale sax ne na comme man bëgguma ko naa ko naa naa delloo li nga xamante ni moom la defoon si man. waaw ay mbokk ngeen est-ce que sa yaay dem na woo yaayam waxtaan ak ñoom. waxtaan nañ famille bi yëpp famille bi yëpp waxtaan nañ sama famille yaay sama famille papa moom famille yaayam famille papaam ñu toog. ñoom daal ñu sax fu ñu sax ne fekkee man sëyaluma ko naa delloo li nga xam ne moom la moom la defoon si man naa ko delloo instant yi nag may ñaan dimbal ma delloo ko alalam boobu noonu ndax mu mën maa bàyyi ma libre kon bàyyeegula nga libre déedéet dana ma tànk fayoo ma ko duma la may baat te doo sëyali keneen ça fait onze ans ça fait onze ans da laa wax loolu ba nga dégg ko daf ma kaa wax ba ma dégg ko wax ko samay parents wax ko ñëpp ba instant yi nag sama yaay moom daa fépp àndax man ndax ak njural si doomam moo tax euh, sa doom ji euh, mosoo koo dégg téléphone mosuma ko dégg mosoo ko gis tamit depuis bi mu demee ba léegi gisuma ko loolu maa ngi amul dara loo xamante ne nii mu ngi koy def ci yow. manqué na ma ndax nit mënoo jur sa doom ba pare si farata ñu xëy nangu ko si say loxo mënoo kaa gis metti na ma ba si kanam yàlla mais manuma si dara ndax du ma xëccoo ndax waxu xale baaxul ku si gën a oyof bopp yow yaay dee. loolu moo tax man soxlaawuma nee naa daal ma gëm yàlla comme gëm naa yàlla ba heure bii nii su màggee dina ñëw loolu daal. laa waxoon ne nit pour ñu dimbale ma si ma fay ka xaalis boobu pour ma mën a libre donte ba léegi maa ngi jàng sax ndax dagguma sama jàng maa ngi jàng ba léegi. ban bi am naa bac. maa ngi continuer def formation di jàngi waaye nag nañ ma dimbale li laay war a suul ma remboursé xaalisam boobu mu dem ma dem. ndax moom remarié na fi ba am ñaari doomam man maa ngi toog mu téye ma fii ne ma tant que remboursé wu xaalis bi mu bi ma ko yoreel duma dem sëy. est que say ay seeti na ay kilifa euh, maanaam ñoo xamante ne ci wàllu diine comme ci diine lañ la maye woon nga toog onze ans moom nanguwu may baat gisoo ko ba xam yéen a ngi sëy ba léegi ci diine wala déet. sama yaay bu ko defee tamit yëguma ko bu defee loolu moom man yëguma ko wax dëgg yàlla man moom defuma ko. dama jàpp li ma wax rek ne naa ko delloo xaalisam siino du ma may sama baat fii laay toog dund ba dee du ma am jëkkër ndax du ma may sama baat. loolu daal laa jàpp ma li may ñaan daal mooy parents yi nañ gën a xoolaat seen njaboot yi buñ leen may ko ñu bëggul ba tolof tolof yi di leen si fekk loolu daal laay ñaan bépp yaay boo xamante ni jur nga sa doom bul may sa doom ku bëggul ba jafe-jafe ëllëg di nga si fekk